这个这个 Idrissa Sène Badiane li nga bàyyi noonu mbokk yi tàmbali na. ñu koy gis noonu Moussa. الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم aywa ñu doole santaat suñu borom subhanahu wa taala di julli ci sang bu tedd Seydina sallallahu alayhi wa di wasal ci Cheikh Mouhidine Alpha Samba Diallo di ñaan sama borom mu yeesalaat ay yërmande ci kawam te yàlla taas ñu ci ay barkeem di santaat suñu borom ci beneen yoon ci diiwaan bi nga xam ne tey ñooñu dalal di Malem Hodar alhamdulilahi rabil alamin alhamdulilahi rabil alamin alhamdulilahi rabil alamin mbokk jullit yi mbokk personnel yi ginnaaw bi ñu sant yàlla suñu borom julli si yonent bi sallallahu alayhi wa ñu ngi yëkkati kaddu mbégte di dalal gan yi fi teew yépp jiital si suñu sang bu tedd bi cheikh ibrahim diallo bu cheikh may muhiddin diallo yal na yalla yokk leeram di nuyu tamit délégation bi mu andal yépp di leen di wax ci malem odar lan wa di am mbégte bu particulier bu yëngal suma xol ndax teewaayu sama soppe sama xarit sama rakk sama doom baay bi yàlla dogal tey sang bi teg bébé Achoura ci loxoom muy président Faye bi nga xamante ne moo yor tribunal bu Koungheul may seede mbokk mi di seede ci sëriñ bi ne kii day euh, yaakaar bu rëy la ci réew mi di ndokkeel tamit gan wi ak i waajuram di ñaan yàlla sunu borom yàlla barkeel ko yàlla def ci moom wër ak barke ak njëriñ ci askan bi waaye man de am naa ci yaakaar bu baax a baax Fatick laa dëkk Baye Niass wat ma tuddamam muqaddamam yusufa Ba ma tarbiyo Medina bay bama amé 16 ans kon Yakarnane, naa ne képp ku dëkk fatik di nampé kaolak xam nga Cheikh Mouhidine Diallo boko xamul yit yaangi ngi ay diko wé kon am nañ mbégte bu reuy sang bi ndax dafa melni ñun ñi teeru dañ té bok xana kay di féliciter encore une fois docteur Diallo mi nga xamné mom la yalla dogal muy médecin chef district bi di suñu titre di tiitaru état di tiitaru profession médecin ci yaram ci tegginam ci bëgg liggéeyam ci ko ci téyam kon mën nañ doli sante yalla sunu borom ci lim ñu jagleel bés bi ndax dañ ko bok ak ñeneen ak ñeneen région Fatick région Kaolack région Kaffrine yalla def euh, ci ciobarem ak seen yene ak ci méritam mom ak personnelam yalla dogal tay ñu aye yalla dogal doomu Malem Odar yalla jagleel ko jàppandal bii nga xamante ne héritage la boo xam ne ñu ngi koy wasaare ñaareel bi ñu bégloo muy Malem Hodar ndax cër bi cëru diine la buy suqali diine buy wone dooleb diine bu am solo ci dëkkan bu askan bi fi nag mooy Malem Hodar defe naa kuy wax diine Malem Hodar mënul des ginnaaw Malem Hodar dëkku diine la Malem Hodar dëkku liggéey la ci liggéey yi gën a sell jëm ci mbéy ak càmm xamuñu dara lu dum arxuraan daara ak liggéey kon mu mel ni tamit yàlla du juum bim ñu jaglelee mbir mi mu feeña ci yéen euh, docteur jàllo lépp lu nit di am ci lu baax ci liggéeyam mérite na defe naa ñëpp mun nañ ko seede li ñuy def rek muy ginnaaw jëmmam ndax kenn rek mënul dara mooy personnel de santé bi muy infirmier infirmière yi muy saay femme yi gàcce ndam lu tey centre de santé bu Malem odar am district sanitaire Malem odar lu mu am seen takkuwaay la seen abnégation seen détermination seen professionnalisme moo indi kon ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp seen teewaay di félicité ñi ngànk liggéey bi ba tey mu am ku fi mun a mucce ba ñëw ak xéwalam yaatal dooleel jëmm doomu aadama comme ñi ko initié niñ ko bëggee sàng bi jàllo ñu ngi am mbégte bu wér ñu ngi leen di dalal ñu ngi leen di feddali sunu coloré ñu ngi leen di jotali suñu mbégte ak suñu ngërëm ak suñu cant ñu ngi leen di jotali mbégte mboolem doomu Malem Hodar ndax lii nag mel na ni bulet la tey waaye bi ci gën a neex nag dafa doon nu ñu defee ci anam bu dëppoo ak seen diine ak seen nekkin kon yàlla bi am fay yal na leen fay ki waral ndaje bi yal na ko yàlla def mag te barkeel ko muy njëriñu Malem Hodar ah commencé na jëriñ Malem odaa ba da doxagul <laughs> muy njëriñu Malem Oda di njëriñu askan bi di wax suma doomu baay euh, ñu ngi lay félicité di bokk yow yow neexu confiance bi nga xamante ne sang bi am na ko ci yow ba teg ko sa loxo di la féddali suñu coloré di la féddali suñu jàppale ndax yow moom waar boo nekk rek ñu nga ca ndax xam nañ ne góor yàlla nga Euh, foofu laay yem euh, ndax bés bi ak dayoo euh, délégation bi ma jox M. gi suñu rakk suñu xarit suñu saint médecin chef bu oui vous me laissez juste là de terminer donc me suspendre j'annonce juste je vous rends la parole. Et donc, euh, souhaiter la plus cordiale bienvenue à la délégation de Cheikh Ibrahim Diallo, Ibn Cheikh Mouhidine Diallo, son vénéré père, euh, éminence, nous voudrions, au nom de toute la population de Malem Oda, vous remercier, remercier toute la délégation. Euh, mu tudd Ibrahima sant Diallo ma tudd Ibrahima sant Diallo kon ñaari Ibrahima ñoo fi daje euh, mu jóge dëkk boo xam ni ba léegi dañ koy suivre ndax ku tedd ko fa nekkoon tëdd fa nee naa benn jour maa ngi waxtaan ak sama benn xarit ma ne sëñ bi ba mu làqoo la ko nit ñi gën a xam mm-hmm. te si enseignement yi muy joxe. Mhm. enseignement yooyu dañoo nekk d'actualité ba léegi. Mhm. ndax événement bu mënti am. Mhm. suñ dugalee benn vidéo am rek. dafay mel ni suñ baa ngi ba léegi. barke boobu noonu yàlla defal ko. yàlla na ko yàlla def si njaboot gi. def ko si Sénégal gi yëpp. dañoo am mbégte tey. Euh, accueillir délégation bu toll nii sànq maa ngi koy wax préfet nii ah bett nañ ñu. ndax foogewuñ ko nii te comme que foogewuñ ko woon nii xol sedd na fees na maa ngi ko doon wax ci benn réunion de coordination nii personnel de santé lii rek mooy fayam du xaalis du dara wante liggéey ba ñu reconnaître la ngay liggéey ñu féliciter la sa ñëw organiser bis bu toll nii sedd na xol ma leen di ñaax rek ngeen continuer fa ngeen teg seen tànk ngeen continuer ko ndax askan lépp loo ci def ci lu baax bis dina ñëw dañ la ko fay ba wis la ko te bis bi fay nañ la ko fay nañ leen ko ba wis ko surtout mu tombenteeg pàcc boo xam ne dafa am solo si état Sénégal muy santé de la mère et de l'enfant ndax li may faral di wax rek sage-femme yi euh, ma mayoom bu am solo lañ si santé ndax kuy kuy gane àdduna moom ngay njëkk a gis kon kooku noonu nga xam ne sa xar kanam moom lañuy ñuy njëkk a gis war nga di ci boole wax ju neex di ci boole reetaan ba tax na yéen dama leen di gën a ñaax rek ndax bis bi bisu ñaax la geste yi ñu def nii defal nañ ko yaayu xale bi defal nañ ko xale bi wante defal nañ ko personnel de santé kon ci kaw loolu sëñ bi ñoo ngi lay ñaan gëna ñaanal hôpital bi hôpital bi jëm kanam ndax su jëmee kanam rek ñun suñu xol daal di sedd suñ jëmee kanam santé askanu Malem gëna jëm kanam gëna ñong euh di duma paré nak nag te gëmaru moom gëruma CDS bi ndax comité de développement sanitaire bi lepp lu fi taxawal it ñom seen loxo ñong si kon vraiment ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax Ramatoulaye ak ñi nga àndal ñëpp euh, di tàllal loxoy rek ngeen ñaanal ñu bu baax a baax a baax sëñ bi xam ni mën nga ko ndax euh, wàccee nañ la lu bëri te loolu ñu la wàccee tànq ci ci lu bëri seet duñu ko incha allah su ko defee naataange nekk si askanu Malem maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm. Eh, dañuy yëkëti kàddu yu nuyu jëmale ko ci sëñ bi di nuyu le préfet du département ñi fi tew ñëpp ci gàttal kàddu yi du gudd kàddu yu sant yàlla la kàddu yu mbégte la ndax mbir bu jógee rek eh, am lu mu tombeel mën na indi sant yàlla te temps bu ne am na lu koy marqué kon képp ku nekk ci malem temps bi muy préfet muy docteur tombé ci lii sëñ bi jagleel xale yi di bébé assura yàlla def tey Malem jël ko ci kanamu ñeneen ak ñeneen tombe mooy waral ay gaaf su tombe woon ak leneen nit ñi ne yéen la comme lu neex la lu baax la mu tombe ak yéen alhamdulilahi rabbil alamin ñuy wax na rek sëñ bi kontaan nañ lool lii nga xamante ne ñëw na fii ci Malem Hodar di ci sant le médecin chef ci engagement am ñëpp wax nañ ko waaye ak équipe bi mu àndal yëpp ndax olof njaay neena na kenn mënul dara kon équipe bi dañ ko gunge ba lii di am di am mbir nag buy am rek am na lu tax am na lu bari lu xew ci ayam ci Malem odar kon dañ koy santé yàlla ñun nag sunu taxawaay mooy dañuy wax ci baatu askan bi ne Malem odar tey bég ne ndax lu jógee ci sëñ bii ñëw fii yegg na ci xol dañuy ñaan lii di màndarga ci saayir ñu mën koo gis ci baatin yal na ci ma leen odaat am yal nañu ci naan ba màndi sant yàlla la def lool sëñ bi di ziar lu bare bare di jégalu ci kàddu yi man tey dama kontaan loolu daal laa amoon di sant le préfet docteur ak équipe bi mu àndal waaye nag ñuy ziar di sukk di dëkk suñuy loxo sëñ bi ak ñi mu àndal ay ñaan ci mala odaar gi maa ngi sant ñëpp di jégalu ci kàddu yi wasalaam والسلام على رسول الله kon asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu yéen kilifa yi waaye ak yéen mbokk yi nga xam ne yéen lañ fekk ci dëkk bi di sant yàlla bu baax ci kàddu yi nga xam ne moom lañ fi jot a dégg waaye di santaat yàlla itam moom ki nga xam ne moom moo ñu womat ci coobareem ba indi ñu ci béréb bu sell bii waaye di gën a amaat xel mu dal ci seede yi nga xam ne moom lañ dégg ñu seede ko itam waa dëkk bii euh, la ca gën a am solo nag muy dëkk bii euh, dëkk lislaam la ndax lépp looy seedeel nit wala nga di ko melalee nit amut lu ci gën ñu ne kii niti lislaam la te jëmm ji nga xam ne moom moo def sunna si di cheikh muhidin rahmatullahi alayhi diineem daf ko jaraloon lu bari te it nekk doon jëmm joo xam ne euh, boppam rekk la seddoon cër waaye li mu séddoon doomu aadama yi ci cër yaakaar naa sax moom séddu doon ko boppam euh, maa ngi leen koy wax barki démb ne leen bébé Achoura bi ngëmam ci diine ak fiiram ci diine moom moo tax mu sos sunna si ndax dafa gis yeneen dëkk yi wala yeneen pàcc yi wala ñeneen ci ay doomu aadama su seen bés jotee lam leen di jaral loolu nag poussé ko ci njaboot gi nga xam ne moom la am tey te muy njaboot ak lislaam mu jéem leen a rëddal sunna soo xam ne euh, dañ ciy jaar ba faw te muy loo xam ne dafay rafetal ak ànd waaye di rafetal image yi diine ndax daawa te mooy woo nit ñi jëmee leen ci diine dafa bëri ay façon am na ci façon boo xam ne bind lay doon wane xam-xam tasaare ko ci àdduna bi nit ñi jàng xam-xam boobu dal di ko jëriñoo dar ci ca orienté woo bu jaar ci yoon wu baax am ci beneen pàcc goo xam ne du doon bind ndax ñëpp mënuñu jàng mais da ngay wax ñu dégg guddi nga wax bëccëg nga wax pour jëlee nit ñi ca lañu nekk jëmee leen fa gën ca fa ñu nekk am ci beneen parti nag bi ci gën a am solo mooy dangay seet li nga xam ne mooy taar bi lislaam am nga daldi ko feeñalal nit ñi du doonati bind du doonati jàng mais waneel lislaam taar bi nekk ci moom kon bii bokk na ci benn ci yooyu xam ne lislaam diiney jàppalante la lislaam diiney dimbalante la waaye lislaam diiney bëggante la waaye lislaam diiney respectante la tax mu ne damay tàmbali di jox ay teraanga gone gi nga xam ne moom mooy njëkk a gane àdduna ci weer wii nga xam ne moom lañu am ñun jullit ñi muy tamxarak mu ànd ak ñun def ko benn yoon ñaar yoon ñett yoon ñeenti yoon juróomi yoon juróom-benn yoon su fekkoon nag junju la loolu war na doy su fekkoon njàngale la war nañu dégg su fekkoon jubbanti la war nañ ci jub su fekkoon léeb la war nañ dégg su doon pasini tam war nañ comprendre waaye alhamdulilahi rabbil alamin ndax mënoon na bëgg lu baax moom sëriñ bi jëmbat fi lu baax moom sëriñ bi waaye mu bàyyeekoo fi rek lu baax loola daal di nax saay mu tax benn bindkat dañu bind ne yaa ahlal kitaabi man yari su makaati banaa ee yéen ñi nga xam ne xamee leen woon lu dul téere ak mbind ndax ëllëg su ngeen fi bàyyeekoo am ngeen ñu doon seen seen gàngunaay ndax am ngeen ñu daan doon seen i téere kon loolu li mu bëgg a mooy moom même su bëggoon lu baax jëmbat lu baax jàngale lu baax wane lu baax te bàyyi wu fi ñu baax kon lu baaxam la dina dal di réer mu seet nag jerbaatam bu sës ci moom doy ko fépp doy ko ci lépp muy maître fay bi mu jël lii daldi ko ko teg daldi ko ko sédd mu nekk cëram sedd gi itam du hasard ndax ay démb yoo xam ne moo feeñ ci moom la démb yoo xam ne ay wéyjur lañu woon yoo xam ne yu baax lañu woon yàlla def ñu àndoon ak sëriñ bi mbaax googu yàlla rawale ko dundal ko màggal ko ba moom yàlla mu delloo ko ko kon ñu ngi koy ñaanal moom tam également yàlla na yàgg ci teraanga jooju euh, mu bàyyi fi nag doom ju bunta bàyyi ndax héritage dafa xaw a am solo ndax nit bëri na fi kër yoo xam ne tey culture ba fa nekkoon tey soo demee dootu ko fekk coow rek nga fay fekk te bëri na itam ay njëriñ yoo xam ne danga ko fekk ci déeg te soo demee ci océan bi doo ko fa fekk waaye mu bàyyi fi doom ju mot a bàyyi doom joo xam ne njëkk mu ko fi at xam na ne su ma ko fi bàyyi lépp lu ma bëggoon dana ko def ndax def fi nekk ak moom ba pare te bàyyee lépp dund na ak wéyjuram wéyjuram bàyyee ko lépp kuy wax moom ngay waxal kuy def moom ngay defal moo tax ngeen di dégg toujours su may discours maa leen moom nekk na xalifaay wéyjuram te fekk wéyjuram a ngi fi. parce que yàlla bi muy indi nii pour mu nekk xalifaam ci ko suuf taxul yàlla jóg fi yàlla bi muy jël daaw da ne ko def naa la ngay sama xalifa ci suuf te daaw daa ngi fi woon waaye pouvoir ya nga xam ne moom la war a exercer après. dox na ko ci dundam dox ko ci kanamam ñu sant yàlla bu baax itam te di ko ñaanal loolu yàlla na yokk parce que su fekkoon ne dafa cuune muy benn walla dafa ragal muy ñaar wala dafa yaafus mooy ñett nege ni kon bi ñu sëriñ bi bàyyee daanu na ndax du lu ndaw yéena ko wax fii léegi sëriñ bi daram feeñagul ci gàttal xam nga 124 mille prophètes yi yàlla yónni tàmbalee ko ci aadam ci muhammad amul kenn ku ci nekk yonent ku fi ñëw rek da nga doon xàllal yonent bi di wane ki war a ñëw mooy kan sëñ bi nag toujours da ngeen dégg samay discours ma ne araf min anu yaraf kenn xamul ko lu dul yàlla mi ko bind sëriñ bi kenn xamul ko lu dul yàlla mi ko bind ndax sëriñ bi teyam teyam teyam dafay gàcceel démbam yàlla def mu bàyyi ko fi waaye bàyyee ko fii tam responsabilité gu ngand ndax képp ku ñu ne Cheikh Mouhidine mooy sa wéyjur am nga problème ndax Cheikh Mouhidine dafa nekkoon ci benn dimension boo xam ne dimension internationale la woon moom ci jëmmam ak dundam ak xam-xamam daanaka dafa jéggi woon ay continent dem ci ay continent te la mu liggéey ci biti yaakaar naa liggéeyagu ko ci senegal ndax temps bi mayagul ko ko waaye ku nekk xam na ne Cheikh Mouhidine euh, léppam ay junju la woon te saa yoo xëyee la mu junjoon daf lay leer nañ bàyyee woon nañu projet yu dul jeex ci ay liggéey ñëpp yaakaaroon nañ ne liggéey yooyu dina bus waaye alhamdulillah rabbil alamin lépp lu mu bàyyi woon wala lu mu doon def muy benn tey ñettam la ñuy triplé lépp lu mu gënoon a bëgg itam gis na te tey loola dund na waat gannaawam lépp lu mu mébétoon itam gis nañ ne loola mat na gannaawam te loolu lépp yàlla nga ko jaarale ci moom jëmm ji nga xam ne moom mooy moom du ma wax ne mooy ndonoom sax dama naan dama naan moom mooy moom. ci gàttal rek euh, yéen waa Malem lii chance bu rëy la gis nga euh, mbonaat. mbonaat du jur doom waaye dafa yore ween tey nàmpal day nampal te yorut ween laa bëgg a wax mbonaat dafay nàmpal te yorut ween te mom su juree dafay dem ba ci tefes si ndox mu daldi gas jël domi daldi sul di suul bu sentiree né domi war nañu lekk dafay ñew sulli leen ñu xol ko mom yaay ji mom mu xol leen rek ñu daldi di naka la avion di nekkee ci kaw di solal avion bu nekk ci suuf carburant kon am na ñoo xam ne su la yàlla mayee occasion ñu ne bisimilah sa biir kër rek soo yeboo nga beesalaat sa laat sa yéene xam ne suñu ñaane yàlla dina def jàmm te yàlla na yàlla def loolu ci bàkk yonent bi ndax wolof yi dañuy wax ne sabaari basi mooy takk basi soo ko tegee ci béréb ak loo bëgg-bëgg soo ko yëkkatee am lu fa des kon am na ñoo xam ne suñu duggee sa biir ëtt nga xool leen ñu xool la nga toog ak ñoom ay minute wala nga wax ak ñoom ay minute soo yeboon nga xam ne sa defaw xej na ca sëñ bi nag doon nañu wax ne su asamaan di taw nga taataan sa ndox niin nee na ndoxi asamaan niinul le bool bi nga ko taataanee moom moo niin kon ñu rafetalaat yéene yi incha allah su euh, mett waxee ba pare danañ ko jox mu ñaanal leen comme li ngeen bëgg di ñaanal bébé bi góor la am na ñu ko doon laajte yàlla na ko yàlla dundal ak jàmm boole ko ci góor yàlla yi incha allah boole ko ci ñi nga xam ne àdduna ak réew dañ leen di tiitaroo yàlla mën na loolu yàlla na ko yàlla def ñu ngi gërëm ñu ngi sant wasalaamaaleykum wa rahmatullah salaamaaleykum wa rahmatullah mbokk Malem Hodar yi kilifa yi monsieur le préfet monsieur le médecin chef mesdames monsieur Euh, ñu ngi sant yàlla bu baax euh, sëriñ bi ñu ngi leen di ziare euh, Mourchid sant yàlla kontaan nañ tax bi rafet na dañuy santaat suñu borom bu baax ba ñu matee tey ànd ñu ci dëkk bu tedd bi boole ñu ak nit ñu sell ñi ngir solo su am dayo bi kilifa gi mënoon na bëgg bàyyi ñu ko yàlla nattuñu jafe-jafe dugg ci waaye gis nañ ne sant yàlla bu baax ba mu fi nekkee yàlla ngi doon sutural di ñu dimbale ba mu dëddoo tamit euh, alhamdulilah ndimbal googu yokk na daanaka euh, lépp lu ñu doon def ci lu yem yàlla dimbal nañu yokk nañu foofu romb nañ loolu kon duñ mënul lu dul suñu xel dem ci moom ñu njëkk koo ñaanal suñu borom yeesal yërmaande ci kawam yeesal njéggal ci kawam waaye tamit yeesal ngërmaande ci kawam di jaay Seydou Diop sallallahu alayhi wa tey bés bu rafet la bés bu tedd la bés bu neex la ci ñun euh, kilifa gi wax na ko monsieur le préfet euh, plaisir la ci ñun ñu fekk leen ci jataay bii ni ñu màggal tamit nga xam ne suñu borom moo ko màggal mooy gan gu tedd gu ñu am tey dëgg la jig na dëkk bi yàlla na ko dëkk bi jik euh, bu ñëwee andi lu mu andi nii déplacé kilifa yi tedd yi ba fii nii mën nañ am ci moom yaakaar yàlla bu yàlla tas yaakaar Euh, sunna su rafet la euh, boo xam ne bu ñuy gën di dem ñuy gën a sentir yokkute ci loolu euh, gis accompagnement bu bu am solo bi nga xam ne sëriñ bi mu ngi ciy def Cheikh Ibrahima duñ jóg ci di la ñaanal suñu borom yow tamit lafal la cat loolu la sutura loolu la teraanga ni ñu ko yàgg di defee yoo xam ne jox nañ ko uffeetal nañ ko waaw district bi am na dara bi am na district bi am na ay drap de lit yoo xam ne ñoo nekk fële ne ci biir bagage yi mënu yëpp xëju woon mu ko gën génne am na tamit ay test yoo xam ne andi nañ ko ci échantillon lañ génne nii ak yeneen bagage yu nekk ci biir ak ci savon bi tamit benn partie boo xam ne moo ko moom district moo ko moom ak décoration yi nga xam ne ñaar lay doon benn bi day nekk ci bureau médecin ci bureau bureau médecin bi beneen bureau directeur bi beneen bi nekk ci bureau service service maternité bi ñoom ñoo ko yor te du ñu jóg leen di jaajëfal dañoo génne ci at bu xaw a ci yéen da ngeen di góorgóorlu bés bu nekk yàlla leen di dimbale ngeen am ay yu am solo kenn du ko dégg te du leen jaajëfal bu yàlla nattoo kenn ci yéen ñu mën ko reproché dara wala duñ ko reproché dara waaye yàlla nattoo dara ci seen biir rek wax ji day métti da leen di blessé kon day baax su ngeen ci joxee ñu ne leen jaajëf te bu leen wàccegum te ngeen jàppee ko noonu ñu ne leen jaajëf te bu leen wàccegum li ngeen di def bu ñu ko doon atte dañu tegal eh, kii rouge tapis rouge di tatagal leen di sargal ndaxte kuy ñëw àdduna eh, dina jaar ci métit ci xat-xat yeneen taxaw waajuram ba yàlla mën a def suturaat teraanga kon fay leen new loo xam ne yomb na doomi aadama sunu borom maam payoor boobu yàlla leen ko yàlla defal kon loolu yëpp bu weesoo ñu delluwaat ci bi moom moom moom kii valise yooyu noonu te dañ ko def ba nga xam ne du nekk loo xam ne day gaaw a jeex ñaari valise la waaw bu leen neex après nañ ko mën ubbil boo xam ne la xale mën na ko sol ba muy nekkee liir ba ba muy commencé màgg waaw ba ba muy commencé ah jàng école de ba muy jàng jàng kon boobu gunge bi yàgg na am na tamit ñaari paan yoo xam ne defal nañ ko xale bi am na tamit lépp loo xam ne ci prise en charge sanitaire la demee ci entretien am mi ngi ci loolu am na ci am na ci yeneen genre yu ci sax yoo xam tamit mu ngi ci biir yooyu defal nañ ko tamit pour xale bi kiyam bi nu mu tudd cinquième bi mooy ki moustiquaire am bi duñ ko fàtte moom tam yàlla dimbale ñu fàtte ñu ko andil nañ ko ko loolu xale bi moo ko moom dañ ci yokk rek ne bagage ëppoon na lii te am na am na tamit yeneen te tamit jëfi tamit ëpp na lii parce que am na ñeneen ñu ñu wax yoo xam tamit ne ñooñu mënuñ foon dem tey parce que l'élection politique moy baña a yem rek ci ben ci ben solo mm-hmm. parce que amna bari won dafa bari ba nga xam dañu muju mujj pour ñeneen ño xam suba mm-hmm. ñu dem ak gannaaw suba ñu dem yobbu ñi nga xam wax nañu ko dëkk mm-hmm. Birkilaan yi nañ ko yobul mom li mu ci war a yóbbul ak maram bi ak Medina bay ah, ku ci nekk waaw ak am na waaw am na benn waaw parce que daw fatik mo gañe daw jek Kaolack mo gañe ren wa kumbel don yaakaar waaw waaw ngeen doon yaakaar waaye gis yéen la ko yàlla jox ñu yéen leen ko bu baax kon loolu noonu tamit la xale bi am waaye lépp solo mooy ñun luñ ciy am bés bi luñ ciy am mooy lii nii waxtaan jëflante sutura jëflante teraanga xamante màggalante ba lu munti diis si ñun ñu xam ne du tiitre du daraja du maqaama wala du fuñ la teg wala nuñ la ooyee mooy tax ngay romb doomi aadama du jafe-jafe du ñàkk du coono wala du natt bu ñu lay teg moo tax nga matt di doomi aadama mm-hmm. kon lépp lu ci mën a am rek ñu xam ne ñun ay biri diggante doomi aadama la ak doomi aadama ñu wormalante suñu biir ñu bëggante suñu biir ñu jàppante suñu biir ñu jàppalante suñu biir tax suñu réew mi rëyut ñun bëriwuñ noonu lu ñu jig rek moo ñu jàppante ñu bëggante ñu respecté mm-hmm. bu jongante jotee nag mën nañ ñëpp mën nañ ci def fulla beeg fayda beeg lépp dem ci waaye bu ñu paree ñu mën a xam ñëpp ay mbokk lañ ay xarit lañ te defe naa bokk na ci li nga xam ne daan na sabab bés si ni mel pour sutura ak teraanga jaalante suñuy loxo jaalante suñu biir ba nga xam ne duñu xool dara lu ñaaw ci suñu morom mm-hmm. rafet njot suñu borom rafet njort suñuy morom mm-hmm. lii daal bokkoon na ci li nga xam ne mënuma ma koon ñàkk génne waaye tey génne lu bëri daf may sax xaw a diis ndax kilifa gi tedd gi lim yëkkati ci kàddu jëmee ko si ñun ñu doy waar ñi yàlla bu yàlla tas yaakaar monsieur le préfet donc ñu ngi lay ñu ngi lay feddali tamit suñu collègue suñu diggante ak yow lépp loo xam ne gis nga ngi ci yiw ci mbaax bi di ko tudd rek xamal na jàpp nañ ne ci foofu la tey allah rabbi sëriñ bi ma lay dénk tamit dëkk bi suñu dëkk la boo xam ne suñu njaboot dafay nekk waaw dëkk bi am nañ ci njaboot yoo xam ne dañ fiy jàngale ak njaboot yoo xam ne dañ fay ñëw di fi liggéey waaye gisuñ si daal leen jaaxal boobu ba léegi yàlla boole leen ak kilifa yu bëri yërmande su am nañ njaboot sax ci biir hôpital bi donc nga dolli ñaanal dëkk bi yàlla dolli sutura ak sama sët bi yal na ni moom ci barke alquran yàlla fay leen gërëm naa leen sant naa leen sama doomi bay gërëm naa la sant naa la gërëm naa sa maa man da wax nag waaye kontaan naa trop kontaan naa boobu baax a baax a baax na jaageen jëf dañoo ansu billahi mina seytaan rajim laa hawla wala quwwata illa billahi al الحمد لله على النعمة الإسلامية وكفى بها النعمة أي سنت يا الله بباخ باخ باخ دي جلوت ينزل صلى الله عليه وسلم آه، دي أم بكت بباخ دي أم كونتانت بباخ باخ باخ دي سنت سنو يا بباخ باخ دي كو بباخ باخ دي سنت سنو وي جريب دي سنت سنو بغي خمانتني مو أرغنسي لي دي كو نعمل يا الله يا الله يا قلق بي تم يا قلق دف تبارك سيدنا محمد lépp loo xamante ni maanaam mu ngi ciy mébét rek yàlla na yàlla defal ko ko ci daraja ya rasulullah sallallahu alayhi wa sant sant neen baax kontaan neen baax waa rajo yi fi teew yëpp ñoom it ñu ngi leen di gërëm baax leen sant bu baax a baax a baax amuñ seen euh, fay daal ñun daal wax tey moom dañuy bëgg ba ma mënuñu wax wax dëgg yàlla kontaan neen bu baax a baax waaw suñu yaay tamit ñu ngi koy gërëm bu baax di ko ñaanal yàlla yàlla yàggal ko fi te may ko wér euh, lépp loo xamante ni mu ngi ko bëgg si njabootam gi rek yal na yàlla defal ko lu mu ci lu ko njortoom. préfet lu mu wax léegi mbaa ah, allah incha allah dinañ ko def man depuis sama paaf ba léegi eh, xale bu mu am une semaine bu ko ngénte dina ko utal kii ci judd. même ñun tamit seen kër noonu bu fa judd une semaine ñu utal la sa kii ci judd bu soobee yàlla dinañ ko def waaw. jërëjëf Ali toog. ndax it xaw naa guddi kenn ku mu doon ci yéen. bàyyi ngeen seen soxla boobu léegi toog mm-hmm. di nekk jotaay gi mm-hmm. ñu ngi leen di massa bu baax di leen jéggalu ci xaar gu yàgg gi di leen jéggalu ci toog gu yàgg gi di ci jiital ku baax ki nekk suñu càmmooñ di préfet euh, ci diiwaanu Malem Odar di ci teg kii saytu wàllu wér-gu-yaram gi di docteur Diallo di suma turandoo mm-hmm. di ci teg mbooleem ñi nga xam ne ñoom la àndal ci liggéey gu sell gi ci bés bu màgg bi ci liggéey gu barkeel gi di ñaan yàlla barke googu yàlla na sotteeku suñu kaw euh, di jaajëfal ñi ñu àndal jiital ci suñu nijaay suñu kilifa suñu wéyjur al murshid Omar Ibrahim Ndiaye bu ma ko tuddee yóbbaale na mbooleem mbooloo gi ñu àndal waaye di jël sant ak ngërmande gu yaatu gu kawe gu mag lool teg ko ci loxo président fay nga xam ne bi sëriñ bi di nekk ci zaïr ba bi sëriñ bi làqoo mhm. wàccaayu bés bi lépp lu ci aju mhm. moom ci la ci loxo ci loxam la ko sëriñ bi tegoon mhm. mu koy saytu ngën ci saytu di ko saytu caytu goo xamante ne ñaqam fekkeewu ko dooleem fekkeewu ko poosam fekkeewu ko jotam fekkeewu ko waxtam fekkeewu ko mën naa ne bu ñu fi jógee nii tey tàmbali naa waajal euh, bu déwén benn raison lañ doon def mooy bu Kaolack moo ci dugal Fatick moo ci dugal Kaffrine te rafet nañ njortu fi ak déwén bi may ñëw ci yoon bi ñu ngi naan nañ ci dugal jurbel nañ ci dugal yeneen ak yeneen ak ak Ziguinchor kon xam naa ne yooyu yëpp mi ngi ci kanamam ci ay bés yoo xam ne incha allah ci at yi di ñëw suñu kanam yàlla nañ ko fekk ak jàmm te tal ko ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam digganteem ak sëriñ bi nag dina jaaxal nit ñi doom la ci moom jarbaat la ci moom gone la ci moom bu ma ñeme woon tuuti sax mën naa ne mhm. sëriñ bi moo bind baasin mi ci loxo mhm. ah, ci fànn gu nekk mhm. ah, ci dundam ci léppam ci ni mu ko jëlee jëbbal sëriñ bi du it hasard sëriñ bi jël lii teg ko ci loxoom ndax daf ko matee ci wàllu xel ci wàllu yar ci wàllu njàng ci wàllu mbooleem loo xamante ne ci wàllu saytu la Euh, ñu ngi ñaan yàlla yenn yi yaa rabbi yàlla na gën a yaatu ci moom mm-hmm. ba fu mu bëgg bébé Achoura bi egg fa mu romb ko ak sagoom mm-hmm. maa ngi jaajëfal it mbooleem ñi nga xam ne dugal nañ ci seen ñàq mm-hmm. ndax it euh, suñu kilifa di oustaz Omar Ibrahim Ndiaye euh, waxtaanam bi ci jumaa ji passé daanaka dafa soññu taalibe yëpp Mhm. tey préfet li fi nekk ci teraanga. Mhm. Euh, njobootu Cheikh Mouhidine yëpp ñoo ci nekk. Mhm. Euh, yemul bu ma waxee ay njobootam du ñu mu meññ déedéet taalibe yi soppe yi. Euh, ñi ko bëgg ci diine ñi ko bëgg ngir pas-pas. ñi ko bëgg ngir xam-xamam ñi ko bëgg ngir léppam. tey amul kenn ku des ci kaw suuf tey lu dul ekkiti nga benn fifteen ne nañ ko dugal ci bés bi. ñu ngi sant ñëpp ñuy ngi gërëm ñëpp di ñaan yàlla béréb bii. yaa rabbi yàlla na fi jàmm sax yàlla na ngeen yàgg di am ndam yu kawe seen njortu yaa bi yàlla na ngeen yàgg di am ndam yu kawe seen njortu incha allah ñu ngi rafet njortu yi ñëw mooy gën a dàq yi incha allah di jaajëfal ñi nga xam ne tey ñooy sage-femme yi ndax it euh, ci waxinu nit gannaaw yàlla lii yëpp ñoom la euh, préfet wax na ko léegi kii ñëw àddina ñoom ngay njëkk a gis euh, ci seen taxawaay ci seen passeef ci seen dogu ci ni ni ñuy laxasaayoo di taxaw soxna yi ngir ñu mën a mucc ci jàmm tey ñëpp a ngi nelaw seen biir kër waaye ñoom ñu ngi ci liggéey bi tey ñeneen soxna yu bari ñu ngi seen wetu borom kër ñi ñu ngi seen wetu njaboot ñi ñu ngi ci yeneen yitte waaye ñoom tey sañ-sañ boobu amuñu ko mm. seen xëy ak seen ngont yépp mooy di rewle di taxawu di dimbale soxna yi ba ñu mucc ci jàmm yàlla na yàlla fay leen seen dund yàlla na ngeen ci mucc ba faw yaa bi yàlla bu leen des gannaaw ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi fi may jeexale mooy Babacar Mouhidine di ñu jóge Kaffrine ñu ngi leen di jagleel cant bu bu yaatu a yaatu xam ne jóge nañ ba Kaffrine nekk ci ay velo ngir ñëw teewe bés bi ñu ngi sant ñëpp ñu ngi gërëm ñëpp préfet di la ñaanal euh, li sa kanam yal na yal na na gën a leer yal na gën a yaatu ambition yi nga am yéene yi nga am yal na la ko yàlla defal presse bi fi nekk sant nañ ñëpp gërëm nañ ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. di yàlla lépp lu ci yool di tiyaaba yàlla na ko yàlla versé ci compte Cheikh Mouhidine